Thank you. Dikkat! bopp yi soxna yi mu reen bopp yi bu karaw feeñ bu karaw feeñ boo leen mënta egg ci jumaa ji rek taxaw leen fii tey rek waaw amul benn tànk waaw man bi jikku am na lu jege si waaw Thank you. waaw loolu nag moom mooy solution rek loolu rek ay solution rek. moom mooy yow boo taxaw ne mun ngaa jël. ndax ñu lay tontu bi nag lépp yaa bi lépp ba maa ko war a doon. yow Ibrahima ñu ngay

kay moom loolu la fi jëlee. Ah, lépp sëñ bi xoolal xoolal mbooloo bi xoolal coono bi yooyu lépp sëñ bi. waaw ni mu daj daj. yàlla <laughs>

toog leen toog leen xaat situation de métti mais xaar après léegi ci xaw ma woon dégg nga ah. ah dégg nga lan la woon ak deuxième doo koy def. la woon ak deuxième mën de. waaye kon dama góode. lii bu su dóorem. ma ne dama xaj na ci kaw a kaw kaw ah. bi dina ko mere de. wala. ki daan dawal taximan bi tegal lewal ak deuxième xaj na bi. ma ne kon borom taxi bi demagul de. mais mën naa teg lewal doog a dem de. kaw fi mu rajo kaw dëgg naa mel de. waaye ba mu coupé moteur am. gisoo loolu yow. ah. ah. te te te nga ko mer tegal kaw it. yë yë yë nii xanaa waaw mën naa ne de mën